li cour suprême wax jaaxal na leen waaye Y'en ñoom def pétition la ñuy def euh, ndax euh, jàppale ko nag seen naataango bii di Aliou Sané nga xam ni démb la ko procureur dabuwaat nag euh, ci fas ko yéene yóbbu kaso bëgg it ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci kaso bi yëpp te jàpp ni politique moom moo leen fa dugal ñu daat leen di bàyyi semaine bi mooy record ci li dugg biir Espagne jaar ci gaal yi émigration clandestine tey rek juróom téeméeri nit yegg nañu foofee jóge ko fii ci Sénégal muy li ci gën a fees nes kii sunu ànd ak yéen ci faram-fàcce Makumba Bey Macky Sall président de la République def na décret tas gouvernement bi tey jii benn ministre du fanaanoo sak ndomba ñoom ñëpp la yeew yi premier ministre Amadou Ba rek moom moo ci des euh, fi mu ne nii nee itam gouvernement bi ñuy defaat moom moo koy euh, jiitewaat loolu nag euh, balaa yàgg la communiqué bi wax communiqué boo xamante ne nii secrétaire général présidence de la république Omar Samba Ba moo ko yónnee Kumba Sanjaan Faye. Macky Sall jeexal na groupe jëwriñ yi mu joon àndal ba fii ci ab décret la ko xaatimee ci àjjuma ji noonee la ko chef de l'état waxee mu ngi leen di jaajëfal ñoom ministre sortant yi maanaam yooyu génn ci gouvernement bii mu tas di leen sant di leen gërëm seen dogu ak liggéey bu am solo bi ñu daal di amal. la mu doon ab décret nag buñ doon xaar àllarba gi wees ak léegi ndax waxoon na leen ko ci conseil des ministres cant leen gërëm leen xamaloon na leen ne dina tegaat ab gouvernement bu bees ci biir ayu bés bi ba ci njeexintal la ci dogalu tas gouvernement bi tegaat beneen nag moom bu nga xam ne ne ci fi ne woon njiitub jëwriñ di Amadou Ba moom day des ci toogoom ci communiqué bii Macky sàll mu ngi xam le ne ñiy nekk ci gouvernement bii di ñëw nag dinañ ko xam fi du yàgg dara ñu mën ko sént nag diggante ëllëg ci samedi bi ba dimanche wante ay laaj samp gannaaw bi ñeenti weer rek desee ci élection présidentielle yi dëgmal fas yéene ko amal le 25 février ban xeetub gouvernement le président Macky na ma teg moom mi nga xamante ne jeexal na day dem ndax ab gouvernement politique lay doon ngir gën a dooleel ay ñoñam ñu jëlaat nguur gi gannaaw ba mu tànnee Amadou Ba ba noppi moom mi des di jiite gouvernement bii di ñëw wala day doon ab gouvernement technocrate daanaka ñu laalewul lu bëri ci politique ana ban profil le président Macky Sall war a mën a tànn jëmale ci ministre yooyee fas yéene koo gunge mu jeexal ñu mën a it wuyu ci jafe-jafe askan wi amal ay élection yu wóor te daal muy dem du ñu fanaanoo gouvernement euh, Alassane Ouattara def na ni Macky Sall def moom nag daa dàqale premier ministre ba Patrick Achi jombul beneen jotaayu xibaar ñu yaatal ci loolu président Macky Sall euh, daal dinay euh, génne beneen décret boo xam ne ci la tabb Omar Gueye Omar Gueye mi fi nekkoon ci parti réew mi Idrissa Seck nekkoon ministre de la pêche porte parole du gouvernement léegi nag euh, moom mooy rempli Alaaji Ibrahima Sall ci euh, président commission évaluation et suivi politique et programme public Alaaji Ibrahima Sall nag euh, fan yi la wax ndax la génne ab livre fas ci yéene doon candidat def ci programme am dese na noo leer ci lu wér cëng nag ndax yaar yi laale na am déet dinañ dellu siwaat euh, ci kanam tuuti ci dogal bi président de la république jël tos gouvernement bi li fi ak euh, li des euh, ci élection yi ci kanam tuuti lay doon ci sunu gan ci njeexitu xibaar yi ci kanam tuuti ñeenti minute gannaaw juróom-ñeenti waxtu. rajo askan wi. cour jox ngant Ousmane Sonko nee na direction générale des élections li mu def jaadu na lu mën a wéy la kon Ousmane Sonko jeex na du bokk ci élection yi ndax foofee rek. yéeg du jàllu xob falees mën a yem ci wàllu àtte loolee nag ay awakam daal dinañ koy ñaawlu ni bett na leen lool dëgal bi ci coslaay li nga xamante ne nii mooy cëslaayu droit li leen dese ñu war cee mën a la ngaamu fi mu ne nii mooy euh, tribunalu Ziguinchor ba nga xam ni fa la ñu yóbbu woon euh, seen plainte ak cour de justice de la CEDEAO Abdourahmane Diallo lu ëpp ñetti waxtu avocat yi procureur bi kenn ku nekk di teg waaye mujjantal ga juge cour suprême bi jàpp ni Ousmane Sonko newul ci yoon mu jox dëgg direction générale élection ak ministère de l'intérieur ñi nga xam ni dañu bañ jox njiitu parti ba woon Pastef fiche de parrainage am yi avocat wu maire Ziguinchor bi di xamle ni dogal boobu lu leen bett la maître Ciré Clédor Ly dañoo pare yaakaaroon nañ nekk xëy na dina dem dallu tuuti pour xool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 yoon la wala du yoon CEDEAO it ñoom it ñu ngeeg mbir mi kon xeex bi mun nañ yor seen doole wante ñun dinañ ànd ak yoon dinañ ànd ak yàlla te li ñu war a def yëpp dinañ ko def. ci cour suprême takk der yu tàkkoo tàkku ñoo fa ne woon ngir kaaraange gi teewul ay ñooñu Ousmane sonk ñëwoon nañ fa ñuy xamle ni dogu nañu ngir seen candidature njiit bi. Aïda Mbodj nee na décision bi bett ko Touba la yëkkatee kàddu yi Pape Balla la ko wax. sosal Sonko ba mu koy sosal dafa bëggul woon Sonko bokk ki doon attaqué Sonko booba ba léegi dafa bëggul woon Sonko bokk waaye du ñu découragé mësuñoo découragé ndax waxtu wu ko galgalee rek yàlla ñëw ak ay mbiram du tey nit ñi dañ naan 2021 lu jiitu 2021 ba nëgë ni ñoom tàggoowuñu ak Sonko ku koy galgal yàlla di ko dimbale bii itam am nañ espoir ne dina ko jéggi jàll ndaxte ñoom loolu la ñu bëgg loolu la ñuy fexe waaye du loolu mooy am ndax li leen dal tey boo jëlee ku légitime nga dax nga génne ko ni ku légitime man damay substitué wu au juge électoral ba nga xam ni ku légitime man may intérieur nga xam ne yow organisation élection yi dañ la di woon yow waroo ko organiser da nga waroon def ne Ablaye Wade wut ku neutre koo xam ne farul fenn mu organiser élection yi looloo di maan nga ni doo ko def ni du ma ko def carrément ni du ko def jël sa ministre ministre bi substitué wu au juge électoral ñëw di tere ko bokk loolu fi lañ ko fekkoon xamoon nañ ko waaye jàpp nañ nañu dindee gàllankoor yu njëkk yëpp noonu la ñuy dindee waat gàllankoor yooyu dinañ épuiser recours yëpp ñun ñu ngi jóge bitim réew waaye foo dem ci bitim réew mu ngi metti lu la xew ci Sénégal mënagu koo bloqué nag ndax diggante xàcc ak dóor yàlla xaj segum nag kookal lay jéem a ñeneen ñëw ñoo xam ne dinañ ko langal te xamul nag fi mu jëm ñoom ñoo ñii di ko jóge ci les di des euh, ba léegi ak F24 mi fekke woon euh, waa Y'en a ji ngir jàppale leen ci Aliou Sané mi nga xam ne procureur nag euh, da ko ñoddiwaat dugalaat ci euh, kaso bi démb la loolu xew loolu nag euh, neen nañ duñ toog di ko seetaan pétition la ñuy def nag bu ko defee wut signature yoo xamante ne nii dina bëri lool ba tax moom Aliou Sané ak ñeneen ñi nga xam ni jàpp nañ ni politique moo leen tëral ci kaso bi yëpp ñu mën leen faa génne ndaje maa ngi amee woon ca seen siège tey jii ci ngoon Omar Mbow. à ce régime. xel nanguwul ñu jàpp tëj Alioune Sané te mouvement Y en a marre du ci wax. li ko wund nag xam nañ ko mooy xaal leen péage ñoom seen ay candidature yu ñu fi teg pour éliminer toutes les voies dissidentes dans ce pays te loolu mun nekk te dara ci dëgg pour mën a tuumaal doomu jàmbur téye ko ci kaso bi c'est peine perdue parce que tey lañu gën a am détermination tey lañu gën a taxaw tey lañu gën a pare tey lañu gën a xeex encore une fois. Alioune Sané deful dara xoxotal kese la bi ñu sukkandikoo ci caat bu kër gi moomee nag jàppe yóbbum prison bi nga xamante ni def nañ ko Alioune Sané di coordinateur bi lee mouvement bu Y'en a nag lu xel la mënul nangu la. pour motiver seen dossier pour charger seen dossier pour teg ko ay tuuma dem nañ ba ne. le premier le deux ak le trois Alioune Sané moo taal otoom dem ba fële Kër Massar di sotti essence ay boy pour ñu taal. ils sont même allés jusqu'à dire cette bêtise. alors que Alioune Sané a été arrêté xam naa dañ ko jàpp moom mu tàggu commissaire central ne ko maa ngi génn dem taal sama oto may booy essence ñu taal après guddi dinaa ñëwaat fanaan si pour vous dire à quel point le ridicule ne tue pas dans ce pays. coordinateur bu mouvement Y'en a marre di Alioune Sané moo nekk ki ci topp ki jiite plateforme bi di F24 tax nag Mamadou mbooj ñëw dooleel mouvement bi di Y'en a marre. ñun euh, war nañu def euh, fan yi ay réunion te dañ ci def benn pétition boo xam ne leader yi F24 yëpp leader politique ak yëpp dañ ko signé pour ñu libérer. Euh, Aliou Sané mais encore li nga xam ne ñu ko doon def pour que détenu yépp génn. ñi bokk ci mouvement Y en di laaj askan bu Sénégal ngir ñu jóg xeex li nga xamante ni moom lañ jàppee at xoxotal bi nga xamante ni ngóor bu fi nekk mu ngi koy def. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu wax ci wàllu euh, mbëkk mi di nit ñi dugg ci gaal ci loo cay wuti naa takkarnaase gém naa se nag euh, fan yi moom dafa yéeme semaine bi maanaam euh, semaine record la tey ji itam tey daanaka bis la boo xamante ne nii li jàll kenn xamul nu mu toll ndax juróom-ñetti téeméer àgg nañ Espagne ñëpp Sénégal gi lañ joge ko loole nag di ay xabaar yoo xamante ne nii day wane ni kon stratégie bi ñu tegoon ngir fatt frontière bi ba kenn du jàll stratégie boobu doxut. Anna Rocha. bis bu nekk gaal yaa ngi teer ca île Canaries ca Espagne gaal yi ñu ngi woy di yegsi ci île bu ndaw bi di El Hierro bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay espagnol bi di El País semaine bi sax daanaka semaine record la ci jàngatu yéenekaay bi ajuma ji diggante trois heures du matin jàpp midi bateau bi di Salvamar Adara daal dina wàllu lu tolloog ñeenti téeméer ak ñeent fukki nit ak benn yu jóge ci ñeenti gaal bokk ci ñoom jigéen yu bëri waaye itam ay tuutànk 16 h marine espagnole bi daal di amaat beneen alerte ñu ne am na beneen juróomeeli gaal boo xam ne ñu ngi koy séentu waaye fos alerte la woon moo ne day bu ñu sukkandikoo ci présidente ONG bi di Caminando Fronteras am na yeneen gaal yu daal di yegsi ci côte espagnole bi niki ajuma ji daanaka sax bi ñu duggee ci page Facebook am Elena Garson lam ñu xamal moo di lu ëpp juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay migrants ñoom ñoo yàgg bis bi ca Espagne diggante El Hierro Gran Canaria ak Tenerife ñoom ñëpp nag jóge réewu Sénégal El País nee na ay téeméeri téeméeri migrants yu jot egg El Hierro ñoom la lu ñu nekk di yóbbu jamono yi Tenerife fan yi nag pourtant marine sénégalaise daal dina intercepté ay gaal yu bëri terewul nag phénomène bëkk mi mu ngi wéy di continuer mënuñoo jot nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor walla wi ba mën a xam ci lu wér cëng lan moo waral nag euh, dem bi gën takkarnaase te ñoom li nu yaakaaroon ci man leen a teye mujjul sotti muy comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine bi wala direction d'épave ñoom ñu nga xam ni ñoo yor wàllu euh, frontières yi ca police collectif des associations des